di jàngatee ces premiers blocages. d'abord si si dialogue. parce que dañu ne dialogue national n'est-ce pas. oui dialogue national bi euh, gis nañu ni recevoir nañu secteur privé beeg yu demee noonu. Mhm. xam nga tey boo jëlee euh, Patrice Sané. il a <laughs> il a regard de l'homme politique. man j'ai l'observation du communicant. Mhm. l'observation du communicant me pousse. a véritablement jël distance par rapport au regard de l'homme politique kii euh, Patrice mm. parce que man dama ne jàpp dialogue nationale bi en réalité si ñu jàpp si tur ñu ko jox mm. aajowu woon parce que itam am na dialogue national boo xam ne moo jiitu woon mm. il fallait tout simplement ñu dem si application yi donte le Covid bi taxoon nañu arrêté mm-hmm. mais les questions liées aux tensions au Sénégal mm-hmm. c'est des questions éminemment politiques et strictement mm-hmm. tey ji nii président mun na saa yi bu ko neexee chaque deux semaines chaque trois mois mu recevoir le secteur privé waxtaan ak ñoom si li nga xam ne moo soxal wàllu koom. bien léegi nag li nga xam ne moo di poñ yi nga xam ne jël nañ ko parce que dañu ne 49 points dañu jàpp gum mais 49 points yooyu man dama jàpp ni en réalité c' est une liste qui exhaustive pourquoi parce que tout simplement. dama naan après dañuy mel ni ku ñu bëgg jouer sur le nombre. Mhm. sur 49 points on est tombé d'accord sur les 45. oui après ñu alors que mhm. sur les 49 points boo xoolee la majorité des points. yu si mhm. bari bokk. xoolal. dialogue yi jiitu réglé na ko. wa illa référendum 2016 bi euh, réglé na ko. oui parce que y a des questions liées aux ressources naturelles euh, aux partis politiques et leur organisation référendum bi réglé na loolu. on s'attendait tout simplement à une phase d'application par rapport ak poñ yi nga xam ne retiré nañ ko reteniroon nañ ko mhm. dans le référendum et par rapport ak li nga xamooy mooy le oui euh, qu'il avait emporté léegi nag bu ñëwee si li nga xam mooy le point d'achoppement yi mhm. te point d'achoppement forcément l'opposition face à la majorité dina am ay problèmes liés à la candidature mhm. parce que dans l'opposition majoritairement wala ñëpp ils ne veulent pas d'une troisième candidature mhm. en face autrement dit dans le camp du pouvoir certains membres du parti du pouvoir voudraient peut-être ne pas voir Karim ou Khalifa ou autre devenir candidat en 2024 mmh. et que ñoom dañuy prôner pour que leur leader su reste véritablement pour une troisième candidature xam nga mhm. loolu dafay andi jafe-jafe bien sûr mais dans tous les cas comme président nee na ñu ñaan ko si njëkk. Mhm. mais ñu nekk si dialogue bi nañu booloo rek nañ ñaan ko ko si <laughs> ba nga xam ne effectivement. Mhm. point boobu daañu ko mën a élaguer. ba pare jublu si point c' est que parrainage bi ñu ngi retenir pour le moment 0,8 pour cent. Mhm. Euh, par rapport li nga xam ni moo di nombre de parrain yi nga xam ne mooy je crois maxi bi nga xam ne moom nga war a wuti ji. mais je pense que parrainage si wàllu boppam mun nañ ko mun nañu fexe ba nga xam ne au Sénégal on n'aura plus le problème des doublons. Ouais. parce que Brésil am na parrainage mais au Brésil doublon mënut a am parce que soo dugalee doublon doublon bi da signal dañuy signal ni doublon bi am na ba pare. Mm. donc véritablement il faut que ñu def jéego boobu. pour que véritablement ñi war a wuti parrainage. Mm. war a mën a déposer te duñ leen rejeter si wàllu parrainage pour que l'offre politique soit plurielle. Mm si l'offre politique est plurielle les Sénégalais auront en tout cas une pluralité de choix te tant qu'il y pluralité de choix dafay gën a refléter li nga xam ni mhm. moo di ascension démocratique bu jëm si li nga xam ni moo di démocratie électorale mhm. maintenant yenn poñ yi nga xam ne euh, dina dina amaat parce que sur que dina am yeneen jafe-jafe yoo xam ne mhm. euh, amaana daañu ko si daañu ko si noté mais Mohamed gis nga la la mu am divergence divergence si partie prenante yi au finish il appartiendra à une seule personne de prendre les décisions finales ou la décision finale qui va englober l'ensemble l'essentiel des, des décisions mais c'est le président Macky Sall mm le président Macky Sall. loolu aussi beneen étape la. voilà étape bu am solo étape foofu nag. dañ ko xaar foofu nag. ndax moom dina jël. voilà <laughs> léegi léegi le président Macky Sall. Mhm. man en réalité tey su ma doon ni ñu koy waxee chuchoté. Mhm. su ma ko doon. soo ko doon déy déy si noppam uh-huh. je lui aurais dit monsieur le président faites mieux et uh-huh. plus uh-huh. que le président Abdou Diouf parce que bu ñu fàtte nii bu ñu sumbee waxtaan yuy en 91 ba tombé sur en 92 si li nga xam moo di code consensuel boobu bu fi nekkoon di code consensuel Kéba Mbaye Abdou Diouf laata ñu siy tàbbi dafa ne woon bu ma jotee lépp du ma si soppar ñi virgule donc président si wàllu boppam jamono ji ak fi ñu toll ci Sénégal. Mhm. et pour montrer véritablement que nii peut-être que demain ceux-là qui n'ont pas voulu aller au dialogue daañu ne ah demuñu dialogue mais au moins le président semble avoir écouté l'ensemble de nos doléances ba dëxëñaale ko. Mhm. ci dialogue bi ba mën a appliquer ndoo donc foofu rek lañ koy xaar. Mhm. parce que le le le le mot et le dernier mot appartient parce que je rappelle qu'en son temps en sa qualité de directeur de cabinet politique du président Macky Mahmoud Saleh le ministre Mahmoud Saleh. Mhm. bu ñuy entamé dialogue bi euh, politique bi dafa ne woon président Macky Sall dina jëm si appliquer lépp li nga xam ne point de divergence la pour véritablement euh, gën a jox sax part ñi nga xam ne ñoom ñoo wuy si si li nga xam mu di appel am. Mhm. maintenant indépendance pour indépendance euh, ku mu neex nag Mohamed. Mhm. ñu wala dialogue nga bañ a dem. kenn mënu la si dóor. indépendance ak liberté bi nga am pour bañ a dem. mayal indépendance ak liberté ki sañ dem dem. et je rappelle encore une fois parce que encore une fois c'est des faits te démb dafa bokk su ñun. Mm-hmm. le président Abdoulaye Wade a eu à près de seize appels au dialogue. Mm-hmm. je dis bien le président Abdoulaye Wade a eu à près de seize appels au dialogue. Mm-hmm. mais opposition bi dafa mës a bañ. opposition bi dafa mës a bañ. donc. c'est pas parce que tey nii euh, woote nañu fii nag que forcément ñëpp dañuy dem parce que ñëpp mënuñu dem. Mm. dina am forcément ñoo nga xam ne ils sont réticents par en posant sur la table nag des arguments parce que ñoom jàpp nañu argument yi yuy teg si ko la sur la table mooy xam ne am na. Mm. te am na foo xam ne fa la fa la toll. donc mm-hmm. ñoom il faut nga nongul leen liberté boobu indépendance boobu mais quand même. Mm-hmm. Khalifa Sall bii dem il faut ñu nongul ko mais Cheikh Omar y a pas eu de division. ça dit que le président comme ni nga ko waxee à diviser non parce que en réalité xam nga éclatement dama koy dégg mais les mots ont leur sens mm-hmm. fu mu toll nous sommes à l'étape de l'éclaboussure non si c'est important xam nga les mots xam nga non xam nga éclatement maanaam c'est-à-dire que tasaaroo na lépp ar ko fell xam nga fell mhm. loo xam ne dafa ne tëf fell mhm. mais Mohamed loolu am na loo koy ñambaasee de du yàqu mais fu mu nii si biir yeewi benn entité la mhm. contre l'ensemble des composantes benn entité boobu mooy taxaw tout à fait au oh, booy xool dans le F24 c'est plus de cent près de 117 ou 120 organisations kan moo sa bokkut organisation bi nga xam ne ba tey moom moo jóge si yeew yi dem si dialogue bi moo di moo di moo di donc éclaboussure la y a pas d'éclatement mm-hmm. mais moom tam fell fell la mais ah. moom itam am na indépendance moom itam am na liberté en tant organisation politique en tant que leader mu ne damay wuy ji président am na si sañ-sañ te loolu taxul nit ñu war ko dut baaraam ne c'est un c'est il a trahi avec vous mais et d'ailleurs c'est pourquoi j'ai dit il faut que chacun respecte la liberté de l'autre dans sa ligne dans stratégie mais aussi dans mon analyse j'ai très tôt dit am na ñoo xam ils ont intérêt à parce que leur sort politique aussi dépendra du dialogue parce que ils sont ils ont eu à se confronter à Macky Sall euh, tey mënoo wax injustice te doo tudd Khalifa Sall parce que sur les cinq collectivités territoriales yi am Sénégal rapport IGE bi ñu jàppee Khalifa Sall ba tëj ko si kaso bi rapport bi waxul nañ ko topp ci yoon. Mhm. bu dee Karim Wade munoo wax ni subirul trois ans yoo xam tëj nañ ko ci kaso bi génnee ko réew mi gisul ay mbokkam gisul kenn mais tey mooy wax ji may wax rek am na ñoo xamante ni dañ leen tër ba pare jéng leen ba tër mais ñooñu tey euh, seen seen intérêt mooy solution li nga doon wax noonu c'est important mooy grâce boobu ñuy wax est-ce que grâce. solution la est-ce que amnistie solution la PDS balaa ñu dem dañ doon wax ñoom dañoo soxla réouverture du procès est-ce que ci diggante bi temps matériel bi réouverture du procès mën na fi am wala est-ce que li nga xam ni mooy code électorale bi yi ñu fi defoon mu nekk euh, ay jénga ah, en est-ce que mun a suñoo yeesal code électoral bi pour permettre ñu mun a bokk pour man le plus important ci situation réew mi ñu nekk. d'accord ñu fexe ba acteurs yëpp diisoo déggoo. ci li nga xam ne mooy les règles du jeu. démocratique mais surtout ñu am une élection inclusive ba nga xamante ni ñëpp ci ñi ci war a bokk ni nga tuddee grande gueule ñëpp ci war a bokk. ak ki nga xamante ni warta bokk te bëgg a kooku tam ñu xool ndax bokkam <laughs> dina ci dem wala du ci dem Cheikh Cheikh Omar Cheikh Omar Talla ak essai bokk donc loolu <laughs> c'est rapport là c'est important alors <laughs> euh, beneen situation bi ñuy dund sa Saalum Joseph bokk na ci euh, la coalition Yewwi Askan Wi nga xam ne euh, mi ngi appelé à reprendre les les les manifestations mais surtout bi nu jëm bokk na ci Euh, xaw a jege loolu tabaski naam waaye bokk na ci euh, lu nuy sàkk moo ñu lever blocus bi nga xam ne ñu ngi ko nemmeeku ba léegi ci cité kër góor gi à travers euh, le domicile de de du sieur Ousmane Sonko avant ñoom nag ñuy wax loolu ordre des avo l'ordre des avocats génn na démb sàkku également la levée immédiate du blocus parce que ces avocats euh, n'y arrivent pas du tout ci dem këram dem seeti ko alors quelle lecture. lu dul yoon du yoon te kenn mënu koo yoon mhm. bu dee justice bi ci réew mi bi nga xam ne ñun moom la wóolu moom laa gëm étant un légaliste mhm. moo war a tëral nit bu ñuy bu ñuy teg ay ay barrière ci moom wala moo war a tëj lu nit ci bërëb mhm. bu ko deful keneen ku ko def da ngay da nga yoon loolu laa gëm bu dee nag le ministre de l'intérieur a pris ses entières responsabilités ci pouvoir yi nga xam ne moo nekk ci loxoom muy yor kaaraange biir réew mi moom Abdoulaye Antoine Félix Diop saytu ba xam ni lii moom jàpp na ni loolu mooy yoon tam moo war a nekk ndax moom la ko dénk te ci càlle pouvoiram la bokk moom moo koy appliqué du ñu fàtte nag ni moom Antoine Félix Diome c'est un homme un pratiquant du droit ndax magistrat la mm-hmm. lool la jàng loolu la xam loolu lay pratiquer ñu yëkkati intérieur jox ko ko yaakaar naa kon amul loo xam ni def na ko dans l'illégalité ci li ma yaakaar mm-hmm. waaye lii ñu def président Ousmane Sonko man bi ma xàmmee ba tey maa ngi doog gis ñu def ko nit teg ay barrières aux alentours de ta maison sa kanam ak ci ginnaaw mm-hmm. fàttee la fépp loolu man maa ngi koy doog gis jàpp naa nag ni lu dul yoon du yoon te lu dul yoon kenn mënu koo yoonal mm-hmm. mais comme à notre niveau nous avons tout simplement les informations mm-hmm. dañuy yem ci information yi nga xam ni moom la am et puis ñu comprendre que les avocats avocats boo gis dafa am cause bu muy défendre dañu ko jël pour mbir mu régler ko mm-hmm. mu layal nit ki taxawul nit ki lépp loo xamante ni war na ko ca dana ko def ñooñu ils sont dans leur rôle am na combat boo xamante ni moom la ñuy mëne ñoo ngi koy doxal ce n'est pas à une organisation politique bu ñu naan waa yeewi askan bi dañu taxaw ni dañuy def bloqué dañuy déedéet ça ne relève pas de leur ressort au contraire li ñu ci constaté mooy une provocation oui une provocation moom moo am ci loolu noonu mais ce n'est pas de leur ressort. manifestation yeewi tënku ne loolu euh, dina leen yóbbu ci ñu wàccaat ci mbedd bi donte gis nañ lu fi xew récemment ak surtout ci tabaski bi nu jëm est-ce que aujourd'hui lool it euh, waruñu ci mën a def ab taxaw seetlu. c'est une pression boo xam ni pression politique la. parce que am na ci loo xam ni boo ko xoolee ci démarche bi ba ci biir a biir. Mhm. dafay mel ni démarche politique. Mhm. mais doonatul. loo xam ne dañu ko jël lal ko ci justice ci niñ koy doxalee. Mhm. bu dee nag démarche politique daf ci am boo ko xoolee ba ca biir biir réponse politique lay mën a am. Mhm. te réponse politique bi mooy ki nga xam ni moo nekk en pole position day user de son pouvoir pour mën a am li mu bëgg ñi nekk en pole position fi mu toll ni mooy opposition bi parce que Sénégal dafa nekk ci yëngu yoo yëngu-yëngu yoo xam ni ça n'arrange pas le pouvoir parce que mhm. xar kanam nit bu yoree xar kanam mu rafet cicatrice bu ci nekk xar kanamam lay ñaawal. Mhm. te fi mu toll nii président de la république son excellence monsieur Macky Sall moo yor réew mi. kon lépp loo xam ni yëngatu na ci biir réew mi ci wàllu politique ci lu ñuy dul lu ci biir ak biti réew mi. responsable moom lay yàq lay yàq nguuram. Mhm. moom lay yàq toogaayam. kon ñooñu ci loolu la ñuy mën a profité. Mhm. c'est maintenant où il doit la carte de euh, où il doit jouer la carte d'intelligence moom le régime politique je par parle pas de l'État. Mm-hmm. le régime politique ils doivent user de beaucoup d'intelligence mm-hmm. pour que yenn yi bañ a bañ a bañ mën a am mm-hmm. parce que ñii bu ñu naan dañu bëgg a def manifestation c'est bien ngay manifester parce que ça fait partie de la vitalité de la démocratie ay manifestation dafa bokk ci loo xam ni day dooleel démocratie am réew mais dafa am nu ñu koy defee ak waxtu wu nu koy defee dafa am nu nu koy defee ak waxtu bu nu koy defee parfois même opposition ñenn ñi ne ci opposition mais jekku mm-hmm. mais dañuy jekku ba faf yàqal seen bopp <laughs> parce que dans une situation pareille mm-hmm. où tout le monde ñun ñi ñëpp dañ koy wax góor góorlu bi ñun ñi nga xamante ni du jour au la ñuy lijjanti li ñuy dundee saa yu ñu xëyee ci la ñuy góorlu ba am lu ñu yóbbu seen kër nekk ci yittey tabaski taxawaayu njaboot di leen xaar boo ñëwee ni da ngay def ay manifestation yuy bloqué dëkk bi boo ko bu ñu la ko waxee ak buñ la ko waxul dina am responsabilité partagée bi ñuy bañ nit ñi di ko def mm-hmm. dinañ ko yëg ci ñoom